bilalamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ndokkeel yéen sëti Sëriñ Mbàkke Madina radiallahu anhu yi woote woo seeni bokk ak seeni wëllëre ngir fàttaliku maam ju tedd jooju nga xam ne matoon na sëkk lim doon kon dundam gépp nekk ay bind ak i waare lii sëriñ Seck doon wax ci way ku ko xamoon rekk xam ne li ñu wax lépp dëgg la kon ñu ngi leen di ndokkeel di nuyu bu baax kilifa yi nga xam ne nag ñooy kilifay bërëb bi tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xam ne mooy jëwriñi kër gi ak rakkam jëwriñam sëriñ Ibra ak sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo baaxoo di leen teewal ci jataay yu mel nii di rafet lu baax Euh, jataay bu mel nii ay ndaw woote ko woo boroom xam-xam bu mel ni Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne lii sëriñ Fallou Ndiaye wax rek ci am jar na fekki ko fa mu nekk di taataan lim yor muy koo xam ne doomi dëkk bi la jàngalekat la imaam la ab gëstukat la ab bindkat la ab faylasuuf la it nag di xalaatkat boo xam ne ku ñeme ci ay xalaatam te yooyu yëpp nag di lu am solo ku xeet bi ñor kuy topp ay waxtaan da nga xam ne bëgg na penc mi jag lu muy wax lu ne it lu leer lay doon incha allah waaye luñ mën a jariñoo lay doon ñaan su borom gën koo sàmm gën koo dëgëral gën koo dooleel xam nañ ne amul jot waaye woote yu mel nii sañu ko gàntu ndax ci waar wi lay xëy di ci gon daara ju mag jee ñuy wax markaz cheikh alxaji mbakki buso tem topp muassasatu al azhar al islamiyya nekk fe ci yoon Daaru Muxti moom mii mooy directeur ba mooy ilimaan yi jumaa ja fa nekk di jàmbar lool ci daaray azhar yi nga xam ne kenn la ci kenn yu ko téye kon ci xam-xam la yëngu ku ko woo ci xam-xam woo nga naankati sowe ci naanum sow muy waxtaane nag lu am solo loo xam ne lu dolli yaakaar la ndax ndaw yi ko tànn ngir waxtaan ko ci day wane ne ñoom lu seeni at néew-néew xam nañ seen masoliye ci société bi am nañ yëg-yëgu li jëgut xam na li jëgut xam nañ fan la jagade tànn tomb jàngale Sëriñ Tubaa nuñ ci mën a sukkandikoo ngir jàmmarloog yàq yàqu jikko yi te jafe-jafe Sénégal mbaa boog mën nañu wax ne jafe-jafe àdduna fi ñu toll mbokk yi mooy jikko yi te Sëriñ Tuubaa dafa ñëwoon nekk solution ci lépp indi fi diina ju leer delloo nit ñi ci yàlla waaye jëmmalaat diine ba nit ñi mën koo dund man cee jaare ngir am ngërëmul yàlla waaye mu mel ne léeg-léeg jàngale yooyu dañ koy fàtte mbaa boog dañ koy fëtt kon baax na woo ko mel ni sëriñ Fallou ngir mu fàttali lañu ko jikko yu yàqu yi nan lañ mën a sukkandikoo ci jàngale sëriñ Touba ngir jàmmaar la moom tom boobu la sëriñ Fallou Moussa Hassan nar a waxtaane ñuy bàyyiloo xel mbokk yi nag ne jataay yu mel nii li ciy njariñu nit mooy mu teewoo ba bu fi jógee man fee tànqee loo xam ne bu ëllëgee man ko jariñoo ndax li ñuy waxtaanee kat ci ñun ñëpp la ne ci suñ kanam défi la bu nekk ci kanam ñëpp bu dee waajur mi ngi njaboot boo xam ne su moytuwul cell meerul jikko yàqu yi dana songu këram yóbbu njabootam kilifa yi seen njaboot yi ñu njaboote mooy sëriñ yi am ak seeni taalibe waajur ak seeni doom mën nañu wax ne ñëpp ba ci ndaw ñi topp bëgg a baax jikko yàqu yi mi ngi ci mbedd mi mi ngi fépp fas yéene jàmmarloo ak ñoom kon ñoom itam war nañoo am ay ngànnaay yu doy ngir mën a jàmmarloo jikko yàqu yooyu ngir mën a egg fañ jëm ci jàmm moo tax ma jàpp ne tomb bu am solo la mbokk yi ko tànn tànn nañ lu am solo wane nañ ci it ne ñu ñor lañ kon li ñu ñaan mbokk yépp rek ñu teewlu ko déglu ko ak xel te fas koo jàpp te fas koo jëfe ci wax incha allah njariñ dong lay doon kon sëriñ Fallou ñu ngi lay jébbal kàddu gi di ñaan sunu bo dafa la tawfiq dafa la taysiir dafa la ndimbal ba li nga bëgg a jàllale nga jàllale ko waaye ñun ñëpp it ñu man cee maase jariñu ci kon bismillah sëriñ Fallou bokki jilit yi fi teew bokki taalibe ak ñiy dégg suñu kàddu ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci nuyoo ak cant ak sargal di jiite ci nuyoo bi ak ziyaar bi alxalifatul aam lil muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te mottali ko ay naanam waaye nuyoo bi ak ziyaar bi nag ñu teg ko ci jëwriñu kër gi loxol jëwriñu kër gi muy Serigne Cheikh mu jottali ñu ko mbooleem ñi nga xam ne nii ñoom lañu seqal kër gi di nuyu baax mbooloo mi nga xam ne nii ñoom ñooy sëti Sëriñ Mbàkke yi nga xam ne nii ñoo taxawal bés bi te di ci def waxtaan ngir jot leen ci ay sottente ci xalaat waaye yeetante suñu biir di nuyu baax al imaam Sëriñ Mbàkke Abdourahmane nga xam ne moom lañuy seqal jataay bi te mu laytaay ko ci laytaay yu am solo ji kon ñoo ngi ñaan ci barkeb bis bi ak ci barkeb jëm ji nga xam moo tax ñu daje fi di dundal bis bi ñett yooyu nga xam ne moom lañ tudd ci nuyoo boobu te mooy jàmm ak yërmandi ak barke sunu borom ful ko ba mu bari lool mu tasaare ko ci àddina bi yëpp waaye rawatina ci réew yi nga xam ay jullit ñu ngi fay dund waaye rawatina sunum réew di senegal ñu toll ci jamono joo xam ne nii nag àdduna bi buñ ko doon melal mën nañ koo melal ne nit koo xam ne nii daa dem ba nekk màggat ku nekk xam ne nit bu nekkee màggat ay cëram lu bari def ciy sikk cër boo laal day metti walla mu am lu ca manqué àdduna bi ñu toll nii fi mu nekk nii mbooleem secteur yi nga xam ne nii moom lañ xam ci àdduna bi foo ci gëstu ba ci biir da nga gis ne am na jafe-jafe yu mag a mag yoo xam ne ni ña ngi fay jànkoonteel ak moom kon day mel ni àdduna bi dafa nekk màggat moo xam ne ni foo làmb ñu ne foofu day métti buñ jëlee wàllu koom mi dañuy gis ne ci crise lañ toll jafe-jafe boo ñëwee ci wàllum politique bi ci jafe-jafe lañ toll ci wàllum jikko yi ci ay jafe-jafe lañ toll ba ci sax ci wàllu li ñuy tudd ay repère te mooy ay delluwaay am nañ ci ay jafe-jafe loolu na kon laaj na jataay yu mel nii ngir ñu mën a nekk jenn jëmm joo xam ne nii dañuy bokk jubluwaay ci jàmmarloog jafe-jafe yooyu yi nga xam ne nii moo taxaw ci sunu kanam te benn rekk doy ci sëkk gàllankoor dund doomu aadama ci kaw suuf waaye itam xajamal dund nga xam moom dund ci kaw suuf muy jafe-jafe yoo xam ne ni nag di ay crise yoo xam ne nii bu nu xooloon dëgg-dëgg lépp li ci mi ngi dellu ci ne yàlla mi ñu bind wàcce ñu ci kaw suuf dafa am njàngale moo xam daf ko booleek ñun ne ñu nii ak nii laa bëgg ngeen nekk ko ci kaw suuf waaye xëy na doomu aadama ci dëgër boppam njàngale moom lu ci baree bari ñu bàyyi ko gannaaw wut suñu xalaati bopp di ca dox loolu moo indi jafe-jafe yu bari yi nga xam ne nii moom la ñuy dund ci kaw suuf boo xool ni ñuy jëflantee ci wàllu alal ci wàllu koom yàlla la mu waxoon ci dee leen jëflante ci wàllu koom te bu ca lenn ci riba nekk nga gis léegi ne sunu jëflante ci wàllu koom li ko lal dëgg-dëgg mooy riba système bancaire yi ñu yor banque yi ñu yor ni ci jëflante ci wàllu alal yi yëpp ci riba ci lay dox te ñu baree bari ci ñun dañuy jëflante ci fànn boobu nga gis ne jëflante ci wàllu ribaa tey moo tax ñu baree bari xëy nekk ay way ñàkk ñoo amatuñ dara ñi amoon di di am waaye ñàkkoon di di ñàkk loolu mooy jafe-jafe koom-koom bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel ci kaw suuf. boo ñëwee ci relation sociale yi ñuy seq mooy ni jëflante sunu biir nga gis ne li ñu ti ak naafeq te mooy wane ci kaw loo bokkute ak li nga gëm ci biir warante gi ñuy warante suñu biir wuru ji ak yu mel noonu moo ñu yóbbe ñu dem ba àgg ci kenn amatul kóolute ci sa moroom ñu baree bari ci ñun tey booy jëflanteeg nit la ngay yaakaar mooy ne ay nax ngay yaakaar ba kër nga gis leneen kon safaan ba moo am léegi. bu njëkk da nga daan jëflanteeg nit jàpp ne da koy def lam la wax da koy def ba kër nga gis safaan ba waaye léegi kenn wóolatul kenn kenn naw maanaam amatul kóolute ci kenn ku nekk da ngay jàpp ne sa morom daf laa bëgg a nax te loolu li ko waral mooy ne melokaan yooyu nga xam tudd nañ ko léegi tamit tasaaroo suñu biir lu baree bari. wàllum delluwaay muy nit ki fa muy dellu di fa jëlee ay tegtal xëy na mànkiwul waaye nangu ngay dellu moo jafe te it xàmmee ko léegi dem ba jafe lool bari ay woote yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi jóg di tasaaroo ci biir àdduna bi te boo ci toog ba ca biir dangay gis ne kay yëngu kay woote li cëpp ci njariñul boppam dong la lay xëcc di jëmee loolu tam tax bañ bëgg a jaawale bañ dem ba mën nañoo xàmmee ñi nga xam ñoom lañ xam ci ay nit ñuy woo ci nit ñi di leen teg ci yoon ak ñi nga xam dañuy woo nit ñi di leen jëmi seen bopp loolu tam dem ba mu jafee xam lool ndax tasaaroo gu loolu tasaaroo ñu gis nag ne ay jafe-jafe yu bari la kon foo làmb kon mën nga faa wax jafe-jafe bu ñuy dund te yooyu yëpp nag mu ngi dellu ci jafe-jafe yi imam waxoon léegi te mooy jafe-jafe yi ci wàllu jikko yi ñu gis nag ne ci àdduna bi sunum réew ci la bokk réew yuñ ñu dendal yépp ci la bokk ku ci nekk jéem nga ay pexe yu baree bari ngir mën a xool ban yoon ngay jaar ba am solution ci jafe-jafe yooyu nga gis ne bari na idéologie yuñ yuñ testé yuñ jéem a jëfandikoo ba xam danañu saafaraal liñ nekk wala déet ay gisiin ci wàllu koom yu baree bari jëfandikoo nañ ko ci àddina bi waaye ci Afrique waaye fii ci biir Sénégal waaye taxul suñu jafe-jafe wàññiku xam ngeen ne fii ci Sénégal ak réew yu mel ni moom am na jamono dikkoon nañ ñu teg benn programme bu ñu tuddee ajustement structurel te mooy tabaxaat yor yi ni koom ci réew yi nga xam ñoom ñoo nekkoon ci réew yu xaw a suufe yi programme boobee nga xam ne ni mat nay at boobaak léegi mën na wax ne ñàkk gi ñuy dund ak jafe-jafe yi ñuy dund ci yëpp foofu la bàyyi ko booba ca lañ wàññi ñi état bi doon fay ñu wàññi leen la nga xam ne nguur da ko daan jël di ko teg ci njëg yi ñu dindi ko ñu dem ba loola nag feeñ ci dundi nit ñi ñàkk gi gën di yokk dellu gannaaw gi gën di yokk kon loola essayé nañ ko waaye gis nañ ne ba loola sax ba léegi jafe-jafe yi ñu dund moom moo ko bokk na ci la ko waral gannaaw bi dem nañ fa teg yeneen plan léeg-léeg nga ñu ne plan juróomi at quinquennat maanaam ne juróomi at yi danañ ci def nangam ak nangam ngir wàññi ñàkk gi ngir wàññi xeex ak njàngam gis nañu boobu antuwul def nañ ci li ñu def septennat mooy juróom-ñaar at yoo xam ne ci def nangam ak nangam ngir jafe yi ñu dund mën a wàññi ko jeex na te dara fa jiwul fi mu nekk nii ñi ngi waxee li ñu te maanaam plan Sénégal émergent maanaam mooy PSE nga xam ne jàpp nañu fekk 2035 jàpp nañu jafe-jafe yu baree bari dana soppi ko ci biir sunu dundin waaye yooyu yëpp bu ñu ko boolee li ñuy mën a seetlu mooy ne ñàkk gi moom daa mel ne day yokk maanaam saa yu ñu xëyee ñi nga xam dañuy dugg ci way ñàkk yi day mel ne day gën di yokk dund bi daa gën a cher lool ba léegi ñu bari seen loxo jotu ci seen gannaaw wàllu paj mi daa dellu gannaaw wàllu njàng mi dellu gannaaw kon mbir yi day mel ne saa yu xëyee ak li ñuy jëfandikoo yëpp day mel ne dañuy gën dox di gën a jëm ci gannaaw ñu gis gisit ne dañuy gën di sori li ñuy tuddee développement te mooy dox goo xam day ànd ak jëm ci kanam ak yokkute jëm ci kanam dañoo gis ne day gën di dellu gannaaw ñu gis nag ne nit léeg dañuy wax ne boo doxee ba mu yàgg xamatoo fa nga jëmoon da ngay dellu fa nga jóge woon ngir mën a juraat aw yoon woo xam ne nii xay ne mooy gën a leer yoon wi nga jëloon. ñu gis nag ne gannaaw ba seet nañ ay yoon yu baree bari yoo xam ne nii jàpp nañ ne buñ ci jaaree danañu mën a génne ci jafe-jafe yi nekk te yoon wuñ ci jaar wu nekk gis nañ ne dañoo yóbbu ci fu gën a metti fañ newoon ñu ne kon nag war na noo xool beneen solution ñu ne solution bi ñu gis nag ñun mooy mi ngi tàmbalee ci ñun ñu xam suñu bopp nit ki bala ngaa mën a def dara da ngay xam sa bopp waxuñ nag ñu gëm suñu bopp waaye danoo wax ñu delluwaat xamaat suñu bopp ñun ñooy ñun bépp projet de développement boo xam ne nii yaa ngi koy taxawal te tàmbale woo ko ci nit ki xam mooy kan moom ci boppam li ci ëpp projet boobu bu jàggee échec ci lay mujj te mooy day yonjox xam sunu bopp nag mi ngi tàmbalee ci ñu xam sunuy reen sunu démb sunu cosaan donte bokkuñ nag ci ñiy woote nañ dellu ca démb waaye danoo bëgg ñu delluwaat ci sunuy cosaan ngir man cee jëlaat fu nuy teg sunu tànk ngir man cee tabax avenir boo xam ne nii mooy gën a rafet mooy gën a jekk mooy gën a yàlla ci doomu aadama lii nga xam moom la ñuy dund. xam suñu bopp nag mooy xam suñuy valeur suñuy cëslaay suñuy aada ak suñu ndono ak sunu cosaan li nga xam ne nii ci lañ tabaxoon suñu askan muy senegal ñu xamoon ñu ci démb ak bërki démb te loolu ñu dem ba mel ne dañ koy bëgg fàtte te moo jur lu bari li ñuy jaf li ñuy jafe-jafe yi ñuy dund kon delluwaat démb xamaat. cëslaay yooyu ak valeur yooyu ak aada yooyu ak ndono loolu nga xam ne ci lañ tabaxoon xeetu senegal ñu nafaraat ko ngir man cee tabaxaat xeet wi ngir mën a jëm ca kanam waaye tam xam sunu diine diine ñu bari dañu jàpp ne dañ koo jëkkaani dëkkul cosaanowul sunum réew waaye diine ci ñun dafa bokk ci léegi li nga xam ne dañoo bokk suñu identité léegi Sénégal yi mënatu koo wax te diine bokkul ci ay mbiram donte dafee ñëw gannaaw bi waaye dem naa dema dem ba jaxasoo sunu biir ba nga xam ne ni mënatuñoo dox te diine jooje boolewuñ ko ci biir moo xam diine ju man doon nag waaye rawatina sunu diine jii di diine lislaam diine lislaam jooju na xam ne lu bari moom it da cee dugg ci biir te xëy na bàyyiwuñ ko xel mu jural ñu ay jafe muy diine joo xam ne dafa am ñoo xam ñu ci àddina bi te xëy na njàngaleem lislaam jubuwu leen ñu mën leen tudd ay noonu lislaam wala sax ay jullit yoo xam ne nii dañoo raxas seenum xel ba mu set ñi def ci yeneen xalaat ñooñee dañoo jàpp ne lislaam moo tax doxuñu moo tax avancé wuñu moo tax ñu ñàkk moo tax ñuy dund ci tumuranke moo tax sunum njàng doxut yu baree bari ñu koy jiñ ne diine jooju moo ñu ko teg ba tax ñu jàpp ne dañoo war a wàññi diine ji wala boog dañoo war a bàyyi diine ji seet weneen dundin xam ngeen ni fii ci sunum réew même ñiy théâtre ñi nga xam dañuy théâtre sax bu ñu bëggee wane personnalité islaam nituk jullit buñ ko bëggee wane dañ lay indi nit ku doyadi koo xam ne nii ku maanaam ku ku xeebu ku doyadi koo xam ne nii day wane ne mu xamul dara ci liy dox ci àddina bi kooku lañ lay indil tegal ko sa kanam ne kii mooy ab jullit loolu nag wuute na ak lislaam lool muy melokaan woo xam ne nii jullit bu nekk ci ñun war ngaa def loo man ba saxal safaan bi na koy saxale nag du ci jëfandikoo doole du jëfandikoo violence wala ngay tuur deret kon foofu lay amee solo ndax bu nu xamee li sëñ bi jàngale teñ mën cee jëfandikoo ngir mën a jàmmarloog jafe-jafe jikko yi mooy ne xam nañ lislaam wala boog ña ngay dund suñu lislaam ci gën jaa rafeti anam mu am lu am solo nag loo xam ni daf ko war di xam aw askan day sosu day juddu bu juddoo day màgg ba ak màggam mat su ak màggam ba nag day commencé di wàññiku di wàññiku ba keroo muy daanu weneen askan jugaat ci nit nit nañ ko xamee day juddu néew doole dem ba mu yàgg mu am doole lool am kàttan am foo xam ba fa àggee kàttanam day wàññiku ba keroo yi génn àdduna askan noonu lay mel léeg-léegi nag boo bëggee xam ba xam askan wi ngay dund fan la toll mën nga koo xamee ci melokaanu nit ñi ak seeni jikko am na melokaan yoo xam ne nii mbooloo moo ko gis xamal ne mbooloo moo ma ngi ca cat la bu nekkee cat li nag day laaj li ñuy tuddee relève relève mooy ñoo xam dañuy ñëw aw mbooloo mi balaa mbooloo mee daanu mépp mbooloo moo gis la leen boole woon takk leen di génn buum ñu commencé buum googee ñu koy yolomal muy gën di yolom ba jëm ci tas xamal ne mbooloo moomee ma ngi ci catam mbooloo moo gis cëslaay yi ak valeur yi nga xam ni moom lañ amoon ak jikko yi nga xam ne nii ci lañ tabaxe woon seenu askan ñu dem ba jikko yooyu ak melokaan yooyu ñu koy gannaawal di jëggaani yeneen jikko di ko remplacer xamal ne mbooloo moomee mi ngi ci catam mbooloo moo gis ñu dem ba mu yàgg li ñuy wax fent fent lu bees loo xam ne ni kenn jiituwu la ci nga dem ba gis ne mbooloo mi koo ca gis muy waxtaan sunu mag ñu baax ñi rek la ñuy waxtaane waaye ñun moom duñu wax lu ñu def mbooloo moom it boo gisee ci mbooloo xamal ne mbooloo mooy mi ngi ci catam ndax nit ku nekk boo nekkee ci àdduna dangaa war di yokk dañuy wax ne ku yokkul yaa wàññi kon nag bu ñu demee ba yokkuñ dara waaye fu ñu toll sunu mag ñu baax ñi rek la ñuy waxtaanee waaye ñun duñu waxtaanee suñu ñun li ñu def boobaa xamal ne mbooloo moom mi ngi ci catam mbooloo moo gis itam lépp ci nit ñi booy waxtaan ak ñoom. ñu gëm ne yëf yi yàqu na te mënatut a baax mooy naagu nañ ci ne yëf yi mën naa soppiku jàppal ne mbooloo moomee mu ngi ci catam ndax mbir lum jafe-jafe da ngaa war a jàpp ne ak yëpp maanaam danaa am solution ci mbir mi boo xasee gëm ne mënu am solution nag doo am solution mukk kon nag melokaan yooyu mbooloo moo ko gis jàppal ne mi ngi ci catam mbooloo nag bu nekkee catam day laaj meneen yeneen deret ju bees joo xam ne nii mooy ñëw aw ko bu ko awee itam nag day taraaswaat weneen yoon wu bees woo xam ci lay jaar ngir mën a xett mbooloo moom te mooy delloosiwaat xamaat cëslaay valeur ak aada yeeg melokaan yi nga xam ne nii jikko yu baax yi nga xam ne nii ca lañ tabaxoon askan woowe ñu jéem koo fàttaliwaat nit ñi jéem caa sukkandikuwaat ngir mën a tabaxaat askan woowe wala mbooloo moomee ndax jikko dañuy wax ne ci ci askan mu ngi mel ne yaxub digg gannaaw ci doomu aadama ku nekk xam na ne nit bu amatul yaxub di gannaaw kenn mënta fexe ba mu taxaw jub xocc naka noonu tam mbooloo bu demee ba ay jikkoom yañ ko xamee nekkatu fa moomu mbooloo dootu mën a taxaw moo tax benn ci bindikat yi di wax ne mbooloo moo gis xeet woo gis seeni jikko moo leen fa bàyyi bis bu fa seeni jikko jógee xeet woowee amatul sëriñ bi di ko wax ci nax ju xadaay xaaj ne jikko ju baax mooy mën a rëb mooy mën a nëbbu ak réer wala askan wu ñuy mën a ŋàññ kon jafe-jafe askan wu mënti doon bu fa jikko yu baax nekkee loolee mën naa nëbbut ci ñoom jikko na kon buñ koy waxtaanee mooy liy ràññale nit ak bàyyi ma nit ak bàyyi ma bu ñuy juddu bu ñuy juddu doomu aadama biy door a juddu moog bàyyi ma biy door a juddu ñoo bokki mbir yañ leen mooñaale rek yooyu dong la ñuy judduwaale kon boo jëloon liir bu tuuti buy door a juddu ak mboteb xar bii door a juddu daanaka fi mu ne duñu soreb atte mooy ne xar ku ne xam na ne bu xiifee jooy bu suuree nelaw bu amee kàttan day bajant naka noonu tam xale bii door a juddu bu xiifee day jooy bu lekkee ba suur nelaw bu demee ba yëg ne am na kàttan commencé bajant kon duñ duñu wuute lool bu ñuy door a sosu fañ ñuy wuutee nag mooy ci jikko yi mooy bàyyi ma moom day màgg ci noonu ñu ko mooñe du soppi ku mukk nit nag dañ koy génne ci bàyyi ma dugal ko ci nite moo tax ak nite kenn du ko judduwaale da ngay judd ba pare ñu génne la ci bàyyi ma dugal la ci ak nite nite googu nag mooy jikko yi ñuy def ci yow mooy tax nga génn ci mbàyyi ma dugg ci ak nite ku nekk xam na ne nit bàyyi ma am na bëgg-bëggam yoo xam bu ko bëggee fajtal fu mu ko fekk foofa la koy defee su bëggee tuur ndox fu mu ko fekk fa la koy defee su bëggee tuur leneen fu ko fekk fa koy defee su bëggee jaxasoog moroom fu mu ko fekk fa la koy defee bàyyi ma nag ci loolu lay màgg nit nag bu commencé di nit di commencé xàmmee dañ koy xamal ne ko kat am nga yég yëg yoo xam ne nii amoo sañ-sañu maanaam maanaam fajtal ko ci barab bu la mën a fekk wala boog boo koy fajtal nii ak nii nga ko war a defee wala boog daal ci tënk mooy ne lekk ak naan ñun ñëpp dañ koy judduwaale ñoog bàyyi muy ñoo ci yem waaye ni ñuy lekk ak ni ñuy naane moom dañ koy jàngal nit loolu nag mooy dañu lay def ci yow ay jikko moo lay wuutale ak bàyyi ma yooyu jikko yooyu ñu def ci nit nag bu yàggee moom la ñuy tuddee conscience conscience mooy damir damir nag bu nekkee ci nit ki mooy dem ba naa ko war ngaa def lii waroo def lii war ngaa wax lii waroo wax lii war ngaa dem fii waroo dem fii loola nag ca la ñuy wuutee ak bàyyi ma yi nga xam ne nii ñoo bokki mbir waaye itam bu ñu demee ba gis ne dëgg walla boog nar dafa jël barabu dëgg nar daa ñëw jël wàccuwaayu dëgg ñu dem ba gis ne ger daa ñëw jël wàccuwaayu jëflante bu sell tegu ci yoon ñu dem ba gis ne bari na ñu ñuy tagg léegi lool te lañ leen di taggee defuñ ca dara wala boog sax yeyowuñ tagg wa ñu bari ba gis ne bari na ñu ñuy sant lool te cant gañ leen sant maslaa dong la waaye di leen lu ñu def suñ demee ba gis ne maandute dafa amatul ci mbooloo mi te maandute mooy ku nekk xam sa place te dem toog fa loolu tam ñu gis ne mi ngi manqué lool léegi li indi jafe-jafe lépp mooy nit ñu xam seen place ba noppi nanguwuñ faa toog bëgg ñëw jël place keneen toog fa loolu dem nañ ba gis ne amatul buñ demee ba gis ne xamatuñ ne kat jël net jël nit teg ko ci fudul place am tooñ féetewu ko kaw ak place boo xam da nga koo yéegal wala da nga koo wàcc waaye daal jël nit ki teg ko foo xam du wàcc waayam ak nu mu manti mel loola tooñ féetewu ko kaw te loolu bari na suñu jamono ji léegi lool lool. buñ demee ba gis ne kersa wàññi ko nit ñi bu baax a baax lañ daan rus lu baree bari rusatuñ ko bi ñu daan joxe wàññiku na bu baax a baax ñu bari joxeetuñ ko. njàmbaar gi ñu gëmoon démb ki démb daan ko nawe suñuy maam njàmbaar googu mi ngi wàññi suñu biir bu baax a baax. melokaan yooyu nag bu ñu ko gisee dañ naan ñi ngi ci crise morale boog ñu ngi dund jafe-jafe ci wàllu jikko xëy na nag duñu wax ne jikko yi moo yàqu xëy na waxin la woo xam moom la moom la ëpp lu ñuy jëfandikoo waaye nag bërki démb dégg naa sunu jàngalekat bu am ku ci wax lu am solo eh, ci leeral ci baat boobu moo tax ma tax mooy ne kon jafe-jafe jikko lañ nekk waaye waxuñ ne jikko yi dafa yàqu ndax li baaxoon bonut la baaxoon dem ak bërki démb tekkiwul ne loola daa bon léegi waaye mbir mi mi ngi mel ne rek ñu ne la woon dañoo am crise alimentaire dañoo nekk jafe-jafe ci wàllu dund bu ñëwee dañoo ne am jafe-jafe ci wàllu dund tekkiwul ne ceeb daa baaxatul ceeb mën na la mënoon ba léegi waaye dañ koo gisatul wala gis ko jafe wala mu seer ba mënatuñ ko am naka noonu bu ñu waxtaanee jafe-jafe ci wàllu jikko mooy ne jikko yu baax yi mi ngi baax ba léegi waaye gis ko léegi moo jafe mu nekk ci yow moo jafe lool mooy dañoo dem ba safaan gën koo not ba léegi mel ko melukaan wu jafe lool loolu nag la ñu tuddee crise morale te xëy na mooy tomb bi ñu war a waxtaane bu ñu waxtaanee jafe-jafe ci wàllu jikko nag xëy na ñu bari dañu yaakaar ne day ñëw ci mbetteel képp ku amul seetlu gisu askan ni muy doxe dalay lay wóor ne askan wi buñ dëppul barab sàngam lañ jëm te bés dana ñëw ñu àgg bu fekkee amub seetlu nag dangay yaakaar ne nit ñi dañoo xëy xëy mel nii ñu mel déedéet ñu ne mi ngi mel ne nga jëloon ndox dugal ko ci frigo xam nga par degré lay soppi ko di soppi ko di soppi ko ba mu yàgg day dem tudd yur weneen yor weneen tur woo xam doo tudd ndox am na foo xam bu fa àggee doo tudd ndox glace lay tudd. bu ko defee yow mi xamut nag ne glace mas naa nekk ndox da ngay jàpp ne glace daa xëy nekk glace déedéet dafa soppi ko ay par degré ba xëy ci biiru mbooloo noonu la demee pari degré lay soppiku am na foofu bu fa àggee nag ci wàllu quantité lay so wàllu qualité bi mooy soppiku bu ko defee ñu ne jikko yi am na jafe-jafe fekk na ñi doon xam moom xamoon nañ dem ak barki mu ne fii ñu jëm kat buñ dëppul fa lañ jëm moo tax ñi am seetlu moom du leen bett xam nañu fa lañ jëm te wóor nañu ne tam buñ ci jëlul matukaay yi ñu ci war a jël ay at yu néew ci kanam danañ àgg ci situation boo xam ne nii moom bootu sax dund ko dana jafe lool lool moo tax nag léegi responsabilité la ci wajur yi ci mbooloo yi ci sëriñ si ci kilifa yépp ñu waxtaan ci xool ni ñuy delloosa nit ñi ba tegaat leen ci jikko yi nga xam ne al démb barki démb moom lañ xamoon yàqu-yàqu yooyu wala jafe-jafe yooyu am ci jikko yi nag dafa am fu muy jóge am na yu baree bari yi koy jur am na yoo xam ne nii ci nosiinu koom-koom bi ci lay jóge am ci yoo xam ne nii ci dundinu askan bi ci lay jóge am ci yoo xam ne nii média bi moo ko fi indi am ci yoo xam bare bu jàngukaay yi ci lay jóge ak yeneen ak yeneen bu ci nekk danañ ci tudd aslëf ku nekk xam ne ne ñàkk ñàkk day yàq dafay indi jafe jikko ñàkk dafay soppi jikkoy doomu aadama moo tax yonent jàngale daan musli ñàkk naan ñàkk daanaka moo kéefar dañoo sërewul bari na tey koo gis koo xam ne nii muy dox doxin woo xam ne ni wóoru na ko ne du doxin wa gën waaye nag ñàkk ko waral ci misaal tey man ngaa gis koo xam ne nii du lay nag du ciw lay waaye man ngaa gis soxna soo xam ne day jaay boppam ci misaal boo gëstu woon ba ci biir danaan la moom kat daa amul lum dundee wala dafa amul lum nangam ak nangam mu dalay wonel ak ñàkk moo ko puus ci biir donte nag mën na nekk aw lay waaye da gisee kon ñàkk mën na koo puus nit mën naa àndal alali jàmbur fekk ne sax moom ci boppam xam ne àndal alali jàmbur baaxul waaye nag ñàkk moo ko cay puus moo tax ñàkk bu tasaaroo ciw askan néewaa jikko yi ñu bëgg tasaaroo ca biir ndax ñàkk googu moo leen di puus ci yenn doxalin nii ñu séddalee alal ji tam bokk na ci li indi jafe-jafe ci wàllu jikko tey boo jëloon réew mel ne senegal ñi ne fukki million ak juróom benn lañ wala fukki million nangam yu teg boo doon xool tey ñi ci am ay milliards mën naa boo ne ñaar téeméer wala ñetti téeméer wala nga ne junni du ko wees boo doon xool ñi ci am ay millions boo ne benn million ñaari mën naa du ko wees waaye ñi ci yëru dara moom boo leen doon xool mën ngaa lim ay millions yu baree bari yoo xam ne nii bu ñu añee duñu amub reer wala bu ñu reer duñu am ndékki maanaam noonu ñu séddale alal ji nag ñeen ñi yor ko di ko ba di ko pasar pasare di ko yàq ñenn ñi ñun lu ñu dundee mën naa yàq mën naa indi ay jafe-jafe ci jikko yu baree bari ndax gisin wa mooy tax waaye itam exploitation bu ëpp nit ñi ni leen di jëfandikoo ci wàllu liggéey dana indi jafe-jafe ci wàllu jikko ci misaal tey ñu ne la liggéeyal ma liggéey sàngam war naa la cee fay fukki junni waaye ma xam ne yow amoo pexe ma liggéeyaloo liggéey boobee ne la junni laa lay fay wala ñaari junni comme amoo pexe danga jël liggéey bi waaye nag sellal gaag def gaag na mu ko war a defee loolu du fa nekk te ku ne xam ne ne sellal fu mu amatul jikko ju baax moom jógee na fa. kon ni ñuy jëf leen jëfandikoo nit ñi ci wàllum exploitation ci wàllu liggéey loo leen. te duñ leen fay lañ leen war a fay wala duñ leen ko fay ci waxtu buñ leen ko war a fay wala buñ leen koy fay du mat loolu bokk na ci li indi ji jafe-jafe ci wàllu jikko te gis nañu yooyu dafa tasaaroo ci àddina bi lool ndax système libéral bi ñuy dund moo indi lu mel noonu ci àddina bi kon am na ci jafe-jafe yu bare bari yoo xam ne ni wàllum koom ci lay jóge am ci yoo xam ne ni ci sunu dund ci sunu biir ci lay jóge dimbalante mbooloo mu amul jikko yuñ bëgg am fa dana jafe lool ndax bu fekkante nit ki bu ko wóoree ne moom su nekkee ci jafe-jafe mbokkam dana ne ci wetam boobaa moom jàmm la koy yéene kiñaan du ne ci moom mbañeel du ne ci moom yu baree bari yi ñuy bañ ci nit du ne ci moom waaye nag su fekkante ne xeetu dimbalante ak jàppalante dañoo dem ak yërëmante dañoo dem ba amatul suñu biir dana tax jur kiñaan ci suñu biir dana jur mbañeel ci suñu biir dana jur sax yàqalante ci suñu biir te fekk na la ko indi mooy nit ki jàpp ne war nga koo mën a dimbale te dimbale wooku yenn xeetu film yi ñuy wan xale yi lu ci baree bari fi lañ koy jàng xam ngeen ne tey bu ngeen déggee ñu ne senegal léegi doo xëy ba ngoon jot te déggoo ñaar wala ñett yoo xam dañu leen rey xale yi rey ñi cëpp ñu ngi koy jàng ci li ñuy seetaan ci télé yi di ko seetaan ci internet bi muy ay film ci lañ koy jàng xeetu mbon yi ngay gis nit ñi xale yi di ci teel a dugg lool. lu ci baree bari ñu ngi koy jànge ci liñ leen di wan ci film yi ak yu mel noonu ak it ñaaw ñaawteef yi ñi nga xam dañ koy tas ba tey mooy bokk na ci liy tax muy jikko yi di am jafe-jafe bu njëkkoon am na ñaaw ñaawteef boo xam ne ni bu amee fam amee danañ ko lijjanti waaye dañ ko fay gas suul léegi nag dafa am xeeti média yoo xam ne nii dañoo spécialisé wu ci li ñuy wax ay fait divers fait divers mooy yu yu doy waar yoo xam ne nii wërte siiw ñu di ko siiwal mooy dangay gis léeg mën ngaa ñëw euh, ne nit man de dégg naa lu garaaw di ko li mun la li ma dégg tey moo gën a garaaw loolu mooy dañuy dem ba dañuy banaan banaliser yu mel noonu ba dootuñ ko faale ndax dégguñ ko déggu bari kon ñaawteef yi ñuy siiwal ci jumtukaay yu xarala yi bokk na ci liy tax nit ñi dañu dem ba ñaawteef boobu dootuñ ko jàppee muy dara kon bari na ci yoo xam ne nii foofu lay bàyyi ko waaye am na ci yoo xam ne nii mi ngi bàyyi ko ci suñu barabi jàngukaay yi loolu xëy na ñu bari dañ ci bàyyi xel waaye bari na jikko yu ñuy jàmbat mi ngi départ ci barabi jàngukaay yi moo xam daara yi la moo xam école yi la. xam ngeen ni bu dee ci suñu école yi ñu xam am na ci activité yu baree bari yoo xam dañu activité pédagogique la te boo ko xoolee ba ci biir li muy yàq moo ëpp li muy defar. ci misaal tey léeg-léegi ñu ne am xale bi dañ koy jàngal góor ak jigéen ni ñuy jaxasoo ba doom ji sa sosoo wala doom ji bañ caa sosoo. loolu ñu la koy jàngal dëgg la war nañ koo jàng war nañ koo xam ndax dañ koy jëfandikoo ci wàllu docteur waaye nag xale bi dafa war a am fu mu toll door koo jàng am na foo xam bu fa tolloo boo ko jàngalee maanaam ak yàq mën na caa juddoo ca loola te loola mu ngi ci suñu biir ñu koy gis am na ci. sunu daara yi boo ci demee xam ngeen ne yonent bi jàngale woon na bu yàgg ne xale yi bu ñu amee fukki at nañ leen di taqale buñ ko mënee buñ bokkati lal bu ñuy loolu lislaam jàngale woon na ko bu yàgg te ku ne xam na ne ñaari xale yu tëdd ci benn lal seeni yaram di jonjoo moo xam ñaari góor lañ moo xam ñaari soxna lañ bari na li ñuy jàmbat ci buñ màggee foofee lay départ ci jonjoo gi seeni yaram di jonjoo foofu lay départ duñ ko bàyyi xel kon nekkin yi ci biir barab bi jàngukaay yi ak nekkin yi ci biir barab bi daara yi bari na ci yi ñu jafe yi ñu jàmbat ci jikko yi te foofa lay départ ni ñu jiite ci wàllu politique ñoom it bari na lu ñuy jafe-jafe yi am jikko yi ci ñoom lay départ léeg-léeg ñuy jël ay dogal jël ay loi ak i décret yoo xam ne nii ñoom ci seen bopp xam nañ ne dëppawut ak suñuy aada dëppawut ak suñuy cosaan dëppawut ak suñuy jikko dëppawut ak suñu diine waaye dañ koy jël ngir ne seen bailleur de fonds yi ñi leen di jox xaalis ñiy mën di def seeni activité ñooñu loolu lañ bëgg bu ko defee ñu ne kon nañ jël dogal boobu ngir mën a jot ci xaalis boobu loolu gis nañ ne bari na ñu jàmbat ci jamono ji mënoon koo saafara te saafaruñ ko te lu mel noonu bokk na ci la koy indi bokk na ci li mën a indi jafe-jafe ci wàllu jikko tam mooy maanaam ñaari doxin yoo xam dañ koy dox te bokkuñu nit ki ni muy doxe ci wàllu xel ak ni muy doxe ci wàllu matière dañoo bokkul maanaam soppi ko ci wàllu matière dafa mën a gaaw lool te sopp ko ci xel nag day yeex lool ci misaal tey mën ngaa nekk ak fii nit maanaam ñaari at dong nga gëj koo ko gis mu ñëw nekk millionaire wala mu nekk milliardaire day daal di soppiku dëkkuwaayam day soppiku waruwaayam day soppiku colom day soppiku léppam day soppiku waaye nag xel ma moom maanaam doxagut centimètre doxagut dara loolu nag la ñu de ci ci ci ci li ñuy wax fossé culturel maanaam mooy diggante bi nekk gab bi nekk ci diggante nit ñi ni ñuy doxee ci wàllu koom ak ni ñuy doxee ci wàllu mentalité loolu itam indi na jikko yu bari yu mu yàq mooy nit ki dañuy wax ne ci wolof dañuy wax ne alal nu mu la fekkee day gën day yokk loolu rek lay tekki maanaam mooy nit ki bu fekkee alal dafa ñëw ci loxoom te fekk am xelam matagul ni war a mate bari na yàqu-yàqu wala boog jafe-jafe jikko yu mën a jur te loolu gis nañu léegi amum koom dafa yomb lool léegi dafa yomb lool léegi waaye nag dox ci wàllu xel xalaat moom daf nam daan doxee da du soppiku moo tax loolu itam buñ ci bàyyiwul xel bari na jafe-jafe yuy ñëw te moom moo koy indi kon yooyu yennat la ci kon jafe yooyu mën naa jóge foofu ci fànn yu baree bari ñu war a xamit nag ne jikko yi ñuy waxtaane moo crise économique ñoo yem maanaam dañ leen di tudde ay crise cyclique crise cyclique mooy maanaam saa yu ñu doxeeb diir il faut que jafe-jafe boobu am dañ koy defaraat nag jubbantiwaat mën a déparaat waaye il faut bu ñu doxee nangami moom il faut jafe-jafe yu dee am fi ne koom koomu àdduna bi ni mu tëddee nii am na nangami at yoo bu ñu ko doxee il faut que crise économique dee am bu ko defee ñu jubbantiku nag door a déparaat naka noonu tam jikko yi am na diir boo xam bu ñu ko toogee il faut que jikko yi day soppikuwaat ñu war a beesalaat war a jógaat loolu mooy liggéeyu ñi ñuy waxtaane ci histoire Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak ñu mel ne moom ñu ko jiitu woon ci ay yonent di ay xalaatkat yu mag di ay réformateur yu mag ñoo ñëpp seen mission moo doon lan mooy dañoo ñëw fekk seenu askan ne seeni melokaan ak seeni jikko dëppoo wut ak na mu war a mel ñu laxasaayu ngir jubbanti waat askan wi tegaat leen ci yoon loolu nag moo mën mënta ñàkk xëy na jamono ji ñu toll nag loolu lañ soxlawaat mooy nit ñoo xam dañuy ngir fas yéene liggéeyaat ci biir mbooloo mi ngir jikko yooyu nga xam ñàkkoon nañ ko ñu mën koo delloosi buñ ko doon jël benn bar benn dana gën a leer ku nekk xam ne ne boo jëloon tey ku mel ne Seydina Moussa alayhi salaam ba mu ñëwee ci ay jamonoom ak njibar moo tasaaroo woon nit ñi ak njibar dong lañ gëmoon daan ko dund mu ñëw moom ngir mën a xeex ak njabar goo gëmloo nit ñi ne ak njabar ay caaxaan la te waruñ koo gëm loolu kese moo doon mission Seydina Moussa alayhi salaam wala bokk bokkoon na ci li ci ëpp solo boo jëlee ku mel ne Seydina Luut Luut bi mu ñëwee ak ngóor jigéen moo tasaara woon ci askanam moom it mu ñëw laxasaayu ngir xeex ak ngóor jigéen googu mbon mbon boobu mu xeex ak moom ngir mu jóge fi wala boog bokkoon na ci la ko fi indi woon boo jëlee ku mel ne salaam bi muy ñëw da fekk nit ñi nekk ay matérialiste mooy matière rek lañ gëm ci lañ daan xamee nit ki lam am wala na mel wala fa mu dëkk yooyu rek ci lañ daan xamee nit mu ñëw ngir gëm gëmloo nit ñi ne leen dëgg la alal baax na waaye nag nit ñaara ko composé mooy ruux gi ak yaram kon ruux gi dafa war a dund ni yaram war a dund moo tax Isa alayhi salaam liggéeyam bépp moo doon fexe ba delloosee nit ñi ñu gëm ni seen wàllu ruux dañ koo war a topp toppatoo Seydina Muhammad alayhi salaam bi mu ñëwee lu mu fekkoon mooy réer gu mat sëkk ci askanam jikko yu soppiku lool par parloo gu teguwul fenn jur maanaam yàq gu jéggi deew àgg ci nga am doom muy jigéen nga muy xoole nga suul ko muy xoole ngir bañ ko loolu la fi yonent bi alayhi fekkoon moom it war a delloo si nit ñi ci jikko yooyu mu jàngalaat leen lan mooy jikko yu baax ak naka lañ war a dunde loolu moo doon mission moo tax mu ne dañ ma yónni ngir ma mottali jikko yu baax moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu ñëwee moom it fi mu fekkoon askan wi mooy fan mooy gis na ne nit ñi nekkoon nañ ay jullit doon nañ jàng diine waaye dafa gis ne diine dafa ràpp diine dafa nekk ci ay jafe-jafe mooy nit ñi dañuy jàng diine ba noppi soppi ko folklore mooy mu ne ci kaw nii rek waaye biir gi dara newu ci moo tax mu ñëw nekkoon nag man dama fës yéenee yeesalaat diine ji nga xam ne nii moom moo ràppoon te nit ñi di ko nappaaje léegi moom laa fas yéenee kon bu koo tudd ci rek ci ñi ñuy waxtaane rek ci ay kilifa ci ay boroomi xam-xam ci ay xalaatkat ci ay yënant ay nit ñu baax koo ci gis lu tax ñu koy waxtaane mooy ne dafa ñëw fekk awaskanam ci ay jafe-jafe ci wàllu jikko mu laxasaayu def mission mooy fexe ba delloo si nit ñi ci ñu teguwaat tiw yoon léegi nag ñu xool ñun fi ñu toll ñun bu buñ ñëwoon ci fi ñu toll ñun ci askan dañuy gis ne askan yi mu tudd yëpp mën naa am ñoom benn ñaaw ñaawteef rek moo fa woon nit ñëw ngir jubbanti ko waaye ñun dañuy gis ne ñun fii ñu toll moom askan yi ñu woon yëpp ñoo ñu tare maanaam ñoo leen gën a métti situation ndax ñoom bu fekkee benn dong la ñu ñun yu bare bari lañ boole di jànkonteeg moom. boo xoolee tey Moussa alayhi salaam nga xam ne njibar la doon xeex. xoolal tey njibar ni mu tasaaroo suñu biir fan yi sax dégg ngeen li ci alxalifatul am wax pour ñu mën koo gën a sàmm génn génne ko ci dëkk bi nga xam mooy Touba te mu tasaaroo woon fi woon lool lool njabar tasaaroo lool ba nit ñi gëmatuñ lu dul ak njabar ak nga gis li muy yàq ci biir mbooloo mi tasaaroo na lool ci biir jamono ji ñu toll nga gis ne jaamu xërëm xëy na tegub statut di ko jaamu bareetul waaye nit ñi alal lañ jël def ko place euh, xërëm di jaamu alal nit ñi léegi alal lañuy ñuy jaamu boo ko amee ñu ne sa gannaaw boo ko amul ak koo man di doon ñu wan la gannaaw nga gis ne jamono ju ñu nii ak ngóor jigéen maanaam borom ñaari tur yi bu fekkee tur wari su koo waxee noonu borom ñaari tur yi nga gis moom ni mu gën a fesaat jamono yi te moo ne Luut alayhi salaam moom dong la doon xeex nga gis ne kon njabar gaa ngi fi njaamu xiram gaa ngi fi maanaam borom ñaari tur ñu ngi fi. nga gis matérialisme gu ëpp gi ñuy dund nit ñi léegi dootuñu xamee nit ci niteem. waaye ñi ngi koy xamee ci portable ba mu yor wala oto ba muy dawal wala salon bu nu mel noonu nag ki la ñuy xamee nit nga xam ne ci aliénation li ñu di moo am maanaam nit ñi tuñ leen ci nite waaye ñu ngi leen di xàmmee ci lañ yor fi mu ne léegi sax bañ nañ ko ba dañu naan borom oto bu nangam bi wala borom nangam bi loolu lañ lay wooyee euh, léeg-léeg ñu joxe ci misaal mu xaw a yéeme ci misaal te yow am na nit fu muy dem doon seeti xaritam xarit bi am na oto ci misaal léegi bu ñëwee xool oto bi gaarewu fi danaan sawaay di néewu fi moom fi ne du laaj boppam ndax man nit laay seet si wala oto léegi xamatul nit ki oto bi la xam foofu lañ toll maam nit ñi léegi xamatuñ xamatuñ nit ci nite ñi ngi lay xame ci la nga yor ci alal moo tax nit ñi nag nuñ ko mën a amee baax na loolu kon jafe-jafe la boo xam ne nii eh, mi ngi nga gis léegi nit ñi ni ñuy dunde diine ji te dundalutuñ ko dunde diine ji ñu baree bari moo ëpp ci ñun waaye ñi ciy dundal diine ñun ñu néew néew lañ kon nga gis ne mbir yu baree bari moo tase suñu jamono ci ay jafe-jafe ci wàllu jikko ñu war cee waxtaan nga gis ne léegi àgg nañ ci kenn xamatul kan mooy kan kenn xamatul kan moo war a def nangam ak ku war a def nangam mel ni lépp dafa jaxasoo lislaam bi boo ko xoolee diine jàng fi waaye ruux gi moo fi néewatul lislaam dafa am ak ruux ruux googe nag dafa mel ni moom lañ rocc julli gi bari na lool koor gi bari na lool kurus yi bari na lool waaye itam ñiy julli di woor li jëpp ci li jëpp ci ay naka su du noonu ñoom ñoo koy def boo xoolantee ñii fees jàkke yi ñooy fees place yi ñuy carte ñooy fees place yi ñuy defee naka su du noonu ñaaw def yu baree bari itam nit day génn jàkka ja dem di ko def kon nga gis ne nit ñi lislaam ji mi ngi fi waaye ruux gi moo fi nekkatul cëriñ gi ñuy waxtaane fara di ko waxtaane ku nekk xam ne li dugg ci biir sëñ bi bindoon na ko ci masaalikul jinaan jëriñu ci dellu si boo xoolee tey ñi ñi te éducateur nga xam ñoom ñoo di yarkat yi day mel ni ñoom seen bopp sax ñoom ñoo laaj ñu yar leen amatuñ méthode bu leer naññi boo xam ci la ñuy jëflanteeg nit ñi amatuñ principe yu leer naññi yoo xam ci la ñuy jëflanteeg nit ñi boo ñëwee suñu politiciens yi moom bul wax amatuñ méthode amatuñ programme amatuñu projet de société léegi lu fi nekk mooy xastante waxante wax ju ñaaw di ko biral ci kaw xeex ak xuloo loolu la ñu xam léegi léegi sax boo waxee idéologie dañu naan idéologie dafa xewi ndax dañ koo xamul ku ko xamul moo tax ñu naan dafa xewi waaye parti politique boo gis idéologie moo koy lal idéologie mooy fi may jaar ba li tabax askan wi fii ak fii laay jaar loolu weesul loolu ku nekk da ko war a am waaye koo ci doon waxtaanee tey ba ne ko yow lan mooy sa projet de société ñi ci bare ba duñu la tontu ñi ci bare sax boo laajoon lan mooy baatu politique xamuñu ko far kon nit ñi amatuñ principe yu leer nañ amatuñ méthode yu leer ñi yoo xam ci la ñuy jaar moo xam sëriñ ba la moo xam nitu diine ka la moo xam éducateur ba moo xam politicien ba la loolu nag ak jaxasoo la kon ku nekk léegi lañ lay natte mooy la nga dajale ci alal ak noo ko dajalee nag kon situation bu ci lañ dund situation boobu nag ci la sëriñ bi fekkoon askan wi ba liggéeyuñ ci liggéey bu mag forme ci ay nit ba soppoon lu baree bari ba tegaatoon saxaar gi ci kaw raay bi loolee nag jaare woon ko ci taxalli ak mooy raxas nit ki ba mu set ci jikko yi nga xam ne naka su dul noonu la takkaayal ko ay jikko yu rafet tasaare leen ci biir Sénégal ba lu bari soppi koon loolee nag dafay mel ne téeméeri atam dafay bëgg a mat téeméeri at nag ñaare bu matee dafay laaj ki ñuy tuddee mu jaddit mu jaddit nag mooy koo xam da ngay ñëwaat ngir beesalaat njàngale moo tax njàngaleem sëñ bi fi mu nekk nii liggéey bi dëgg-dëgg mooy ñu fàttaliwaat ko nit ñi xamal nit ñi fa sëñ bi fa mu jëme woon nit ñi li ko taxoon a jóg sëñ bi li ko taxoon dëgg dëgg dëgg mooy tabax doomu aadama waaye du woon jariñoo doomu aadama loola nag fàttali ko nit ñi xamalaat leen fi sëñ bi jaaroon ba tabax mag ñooñee ñu jaaraat fa ba tabax ndaw ñi defe naa ne loolu mooy liggéey bi te jotaay yu mel ni loolu moo koy tax a jóg sëñ bi nag mag ñooñee mu tabaxoon bu buñ bëggee jariñu ca njàngale moomee nag ngir mën a jàmmaarloog jafe-jafe yi ñuy dund mënta ñàkk ñu xamaan njàngale moomee sëñ yu baree bari la xëy na dañ ci tudd ay mbir mi ngi ko tàmbalee ci wàllu yar tu tànk yi ndax nit dafay àgg foo xam bu fa xasee àgg jubbanti ko dafay weesu waaye nag boo bëggee defar liggéey ci askan yaa ngi tàmbale ci tu tànk yi xale yu ndaw yi nga xam ne ñooy door judd ñoom ngay jël liggéey ci ñoom bu ëllëgee ñu jox la xeet yi nga xam ne nii moom nga bëgg moo tax sëñ bi bi ñëwee ci ndaw ñi la tàmbale ñu ko toppoon ñëpp benn wala ñaar ñoo ko ci féete woon mag ñi ci ñëpp moo leen féete woon mag te moom fanweeri atam matutoon kon ci tout tànk yi ci tàmbalee di ci liggéey liggéey ci liggéey bu am solo nag boole yar ak jàngale ñun nag suñu problème mooy ñi ngi jàngale waaye yaruñu bu fekkee da ngay jàngale te yaroo nag lu yàq ci àdduna bi yaa ko yàq fi mu nekk nii lu yàqu ci àdduna bi ku nu jàngal ba mu ne ar te kenn yaru ko ma ko yàq lu ñuy jàmbal rek kooku moo ñu ko teg kon sëñ bi bu ñëwee nag boole jàngale ak yar moo tax mu bindoon ne xam-xam bu bari te ànd ko yar gi teggin ab coono ko jafe-jafe rek lay jural boroom moo tax mu daal di ñëw tracé système éducatif bu bees yarin wu bees mooy nit ñi danaa leen jàngal waaye nag danaa leen yar loolu mooy déclaration Mbàkke Kajoor ci 1883 fi mu ne sama borom wala bokk yonente wala bokk sama borom xamal na ma ne naa yar nit ñi ci pëstéef bu kawe yitte ju kawe waaye bu ma leen yar ci am njàng dong loolu nag xëy na umpale guñ ko umpale ak ñàkk leer gum ñàkk leer ci ñun moo tax ñu dem bañ jàpp ne sëñ bi dafa ñëw ngir tas jàngale wala sëñ bi daa gis ne am njàngale mënut la mu bëggoon mu bàyyi ko ñu bare ba noonu lañ koy firee loolu nag njuumte la ñu bari sax dañu sëñ bi ñëwee dafa tas daara yi indi beneen système bees déedéet sëñ bi mësta tas daara mësta dox diggante nit ak jàng waaye daf ne nañ boole jàngale ak yar loolu buñ ko bëggee leeral am nañ ci firnde yu baree bari xelum doomu aadama nanguwu ko waaye itam réalité bi ñu dund weddi na ko histoire weddi na ko ndax gannaaw 1883 daara yi gën a mag ci yoonu murit ñu xam leen gannaaw at moomu lañ sosu boo demee daaree ndaam daarul alimul xabir wala nga dem daaree daarul moxti wala nga dem daaree gédé wala daar ju mag ju mën doon ci daara yoonu murit gannaaw déclaration boobu la sos te ñoo ko doon sos ci ndigalul sëñ bi lañ ko sose kon nag nit ma tas taar bu noppi di sos daara loolu tam xel nangu ko kon histoire weddi na ko xel nangu ko ndax mbooleem mag ñi toppoon sëñ bi ku jàngul amu ci woon ñoom ñëpp dañoo jàng ba dañu réer daan bind sax ñenn ñi di way ñenn ñi di bind kon dafa am lu deseen ci ñoom ñu koy mottali sëñ bi waaye dañoo jàngoon ba dañu réer ab ku jàngul amu ci woon koo ci mën di tudd rek jàngoon ba dañu réer door ñëw ci sëñ bi kon yooyu moom li koy weddi bari na kon li am solo mooy soppi aw yarin soppi aw njànglin sëñ bi daa ñëwoon gis ne war na noo soppi njàngin wi war na noo soppi yarin wi mu soppi ko loolu la defal loolu nag daa jotaat wóor nañu ne sëñ bi bu dellu siwaatoon jamono jii bokk na ci li muy njëkk soppi mooy ni ñuy jàngee ak ni ñuy yare nit ñi moom dana ko soppiwaat ndax lu ci baree bari joxewul li ñu bëgg bu fekkoon da ngaa jël école ba nga xam ne dañ ne tubaab lay jàngale ku nekk xam ne la fay génne na mel waaye ñun ñii nga xam ne diine lañuy ñuy jàngale nit ki ñuy génnee maanaam moo sorewut a kële ka ñuy génne moo tax nga gis koo xam day jàng diine ba ne ar ba noppi bu ngeen jëflantee mu wax la lu dëgg bu ngeen jëflantee mu nax la yu mel noonu kooku ku xam diine ku njar ci diine du ko def kon ñaari xeeti njàngin yi ñu am ñaari xeeti yarin yi ñu am amu ci benn buy joxe nit ki nga xam ne nii moom lañ soxla ndax danoo gëm ne ñun li ñuy dund muy dellu naa gi nga xam ne Afrique mi ngi koy dund te Sénégal bokk ci biir kenn mënu koo saafara su fekkente ne xeex bi tàmbalee wuñ ko ci wàllu aada yeeg cosaan yi delloo suñu mbatit delloo siwaat suñu culture tabaxaat suñu bopp moo tax am na président africain bu ko ma sox nee na révolution économique mënta am su fekkee ne révolution culturelle amul mooy jiitu moo tax révolution boobu sëñ bi defoon ci wàllu culture nag moom moo jotaat sëkk ñu defaat ko ngir mën a tabaxaat askan wi ci tabaxin bu bees sëñ bi bokk na ci li mu liggéeyoon mooy ñëw na fekk ne téere yu baree bari ñu ngi koy jàng di ko jàngale waaye dañ koo jëggaani woon te ku nekk xam na ne téere ka ko taalif fa mu dëkk da ciy feeñ jamono jom doon dund da ciy feeñ ñam doon waxal da ciy feeñ kon boo koy jàng day mel ne dalaa delloo ci jamono jooje moo tax sëñ bi bi ñëwee bokk na li mu njëkk def mooy téere yu baree bari mu taalifaat ko mooy da ko nationaliser maanaam mooy nationaliser xam-xam mooy dëkkal ko dëkkal xam-xam soppi ko ba nit ñi xam ne lii ki ko wax nit ku ñuul la na ñoom waaye itam wax ko ci waxin woo xam moo gën a tënku moo gën a leer ñu gis nag ñun sunu école yi ak sunu daar yi téere yu baree bari ñu ngi koy jàng ba léegi yi cëpp dañ koo jëggaani yi cëpp dañ koo jëggaani même yiñ ci bindal suñu bopp sax dañ koo copier coller rek waaye amu ci lenn lu ci bare bari loo xam ne nii ci suñu biir dëgg-dëgg la jóge loolu tam li mu jur xam nañ ko mooy nit ki day jàng ba noppi du gis boppam ci jàng mi jàng ba am li jaay sa yu kawe ba noppi doo gis sa bopp ci njàng mi loolu danay am ku ku fréquenté suñu école koy xam kuy jàngal ku nekk da ngay xam ne xale ñi ngi leen di jàngal waaye gisuñ seen bopp njàng mi moo a lit sawaruñ ci te buñ noppee ci lañ daal daal ciy pare loolu liggéey la kon boo xam ne nii war nañ koo def mooy jéema a xoolaat système bi nuñ koy nosewaat waaye itam nuñ koy gën a boolewaat tarbiya ak jàngale yar ak jàngale ñu boolewaat ko ndax ñoom ñaari seex lañ yoo xam ne nii mënuñoo tàqalikoo boo jàngale nit te yaroo ko ab yàq nga indi boo yaree nit te jàngaloo ko ab bàyyi ma nga indi mooy koo xam ne ni ku ko bëgg a jëfandikoo jariñoo ko te du ko xam moom loolu mooy système bi kon sëñ bi liggéey na ci wàllu yar bi ñu war koo delloo si moom itam liggéeyaat ñun tam ngir mën a jàmmarloog jafe-jafe yi ci wàllu jikko yi ci wàllu koom-koom sëñ bi bi mu ñëwee liggéey na ci liggéey bu mag a mag mooy teel a xamal nit ñu ne leen liggéey ak fàggulu lew farata la mu teel a jàngal nit ne leen ku bëgg teraangay àdduna da ngay nangoo sonn li xew léegi ñu naan alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti wala da ngay toog muy dox loolu léegi la am waaye sëñ bi li mu jàngaloon mooy ku bëgg teraange àdduna da ngay nangoo sonn loolu il faut ñu delloo ci bopp xale yi ñu gëm ko xale yi xam ne nit mënta am teraange te tubaab yee ñuy daw di jëm guddeeg bëccëg dañuy dardari ngir seen teraange buñ defoon na ñoom it àgg na mën nañu àgg ñu àgg fi waaye nag jàpp ne man ngaa am li nga bëgg te doo sonn loolu ku ko def sa bopp ku nekk jàppal ne lu yàqu yàqu yàqu kon ñu war a delloo si ci nag xamal leen ne sëñ bi waxoon nañu ne ku bëgg teraange àdduna da ngay nangoo sonn ñu teel a xamal xale yi ne leen sonn mënta ñàkk teel a xamal xale itam ne leen sàkku lu lew farata la ci bépp jullit xamal leen ne sëñ bi jàngale woon na tam toog loxo yi neen ak sànq sa dund ci lu amul njariñ nee na jàngoro jiy lore jàngoro yooyu moo ci féete kaw kon loolu sëñ bi tam na ko jàngale sëñ bi teel nañoo jàngal ñoom autosuffisance te mooy ñu mën a sukkandiku sunu bopp ngir mën a dem ku nekk xam na ne bari na lu ñuy jàmbat ci sunu biir loo xam lu ko mooy lan mooy jëggaani mooy dañoo mën nagu a demal suñu bopp léegi nag ku la mënal sañal la léeg-léegi nag am ku lay sañal koo xam waru laa sañal loolu rek mooy li ñu indi suñu jafe-jafe te suñu daal dañoo xam ne bu ngeen bëggee bu ngeen bañee ku leen wërta sañal di leen sañal fexe leen bay sukkandiku ci seen bopp loolu sëñ bi teel na cee jàngale lu baax lu am solo muy jumaay tubaay yi ñu dendal bi mu koy yi na nësër mbokk murit taalibe bu nekk mu laaj la ñaar fukk ak juróom-ñett biñ ko dajalee wax na ne da leen nag kaay nag dama leen bëgg woon yoon wi ngeen di jaar ëllëg gi si biir lépp lu ngeen soxla bu ngeen jaaree fii da ngeen ko fajal seen bopp te keneen du ca dugal loxoom moo tax projet ngi si yoonu murid yëpp maanaam dërëm dërëm yooyu moo ko taxawal te loola war naa gën a dellu si ñoo gën koo xam bu baax a baax ñun waratuñoo xaar kenn kuy jóge bitim réew wala état wala yu mel noonu ndax am nañ lu ñu mën a doxal suñu bopp waaye na xëy na nos gi mooy des kon suñu teel naa xam le ne autosuffisance mënta ñàkk ci nit ki sëñ bi indi révolution ci wàllu tasawuf xam ngeen ne ñi daan dund ngirum tasawuf bu njëkk daawuñu liggéey moo tax ci sarax lañ daan dund nit ñi dañaan lekk ba desal jox leen wala ñu sol ba mu rab ñu jox leen ñuy sol waaye ñoom daawuñu liggéey ci loolu lañ daan dund moo tax yonent bi alayhi salaam daa wax nañ ne am na ñum ci ba sa fekk ci koñub jàkka ñu ne ko mu ne ñii ñooy ñan ñu ne ko ñun de ñooy ñi nga xam dañoo dogu rek ngir lépp bàyyi lépp ngir jaamu yàlla mu ne waaw ku leen di dundal ñu ne ko mbooloo mépp ñu ne mu ne kon de mbooloo mépp leen gën nit balaa baax day mën a sukkandiku ci boppam sëñ bi bi mu ñëwee dafa indi révolution ci wàllu ngirum tasaw mooy dafa indi mutasawif boo xam ne nii moo dàq produire ñëpp boo ngeen demee ci jaamu yàlla gi mu mën la fuuf te bu nga demee ci production mu mën la fuuf moom moo indi koo xam dangay ngay naafila alxuraan ñaari ràkka ba noppi di di produire ci mbay loo xam ne nii say morom mënuñu ko moo indi koo xam ne nii bis bu set nga jàngu kaamil te moon liggéey ngay produire kenn mën koo produire lu toll noonu loolu révolution bu sëñ bi def loolu la ñu war a delloosi xamal nit ñi ne leen toog ca jàkka ja du liggéey maanaam jàmm yàlla dañ ko war a def waaye ni ñu war a jaamu yàlla tam loolu la war a maanaam produire loo xam ne ni dañ ciy mën a sukkandiku ngir duñ mën a jéggaani fenn yoon woowu ci la sëñ bi yaroon mag ñi ba tax tey économie Sénégal gépp li cëpp nekk ci loxoy murid yi loolu bokk na ci li ko indi woon muy loo xam dam dañ ko war a jéem a saxal jéem koo woyal ci bopp xale yi bokk na ci li sëñ bi jàngale woon dam mooy ñu bañ a xeeb métier tey borom milliards yu baree bari di ay murit nga di leen dégg ñu leen di waxtaane ku ci nekk bu ñu la waxoon fa mu dalay da jaaxal am na ñoo xam jaay xottu del ci lañ déparé ay wur wur di wët ay xottu bi di ko jaay ñenn ñi di jaay ay socc ba xëy nekk ay milliardaire loolu tey xale boo ko bëgg def loo mu mu mu yow. te moo ne loolu ñoom foofu lañ jaar loolu war nañ koo delloo sil xale yi ñu xam ko ñu xam ne tey la ngay dem Espagne wala Italie di ko fa def te nangu koo def Sénégal boo ko defoon Sénégal maanaam la ngeen foofa nga am ko fii waaye nag xeet métier bari na ñoo xam ne nii xañ na leen wërsëgu baree bari te loolu sëñ bi teeloon na koo jàngale moo tax ci biir mag ñim doon yar daa nga ñëw mu def loolu loo xam ne da ngay jàpp ne kenn warula koon def loo ci misaal tey ñun ëwëg yu mel noonu dafa am ñu ñu ko jagleel tëgg dafa am ñu ko jagleel maanaam yat dafa am ñu ko jagleel sëñ bi daa nga ñëw nga bokk ci beneen waaso mu def loolu loo xam ne nii dangay jàpp ne waroo koo def loolu pour xamal leen ne la ay métier dong la ay métier la yoo xam ne nii kenn waru koo xeeb waaye nag nañ seet nuñ ko yokkee mu jëm kanam moo tax mag ñi sëñ bi yoroon ñoom li ñu leen yaroon mooy lan mooy ne métier mu tuuti amul métier mu dagan ak mu daganul moo am kon kay nañ fexe ba li ñuy liggéey na ndagan waaye nag lu mu tuuti tuuti moom bu nu ko xeet kon sëñ bi liggéey na foofu ci ci ci fànn boobu loolu dam ñu war koo delloo si yar ci ndaw ñi ndax bu ñu xoolee tey xale yi nga xam ne nii ñu ngi dugg ci géej gi toll ci jàng toll ci ñu yar leen ñu dugg ci géej gi jaay seen bakkan mën naa am ñu àgg mën naa am du ñu àgg bu ñu àggee nag la muy jur ëllëg moo gën a garaaw ndax xale bi ñoragul dem ci beneen askan dañ koy jox yeneen aada ak yeneen cosaan yoo xam ne nii bu ñëwee moom lay jëmbat ci ñun bu ko defee nag lay ñëw ëllëg moom bu ñu xam lu mu doon ñenn ñi nag moom far faatu nañ ci biir géej gi ñenn ñi kenn gisul leen ak la ciy juddoo lépp loolu kon war nañoo delloo si loolu xamal ko ndaw ñi ne leen mooy ne kat métier du tuuti waaye itam nit dangay ngay nangoo sukkandiku sa bopp waaye itam nit dangay ngay gëm ne da war a sonn ngir am teraangay àddina bu ñëwee ci wàllu dundinu askan waxoon nañ ko léegi mooy ñàkk yërmande gi ñàkk warma yi ñàkk respect suñu biir sëñ bi tënk ci ñetti mbir daf ne mbooloo moo gis ñett dong nga ci am mooy ñi féete mag ak ñiñ féete mag ak ñi maase ñooñu rek ñoo fi am benn nga nekk rakk wala mag wala ñu maase mu ne nag bu ñu bëggee dundi ñu jaar yoon mag ñi nañ yërëm ndaw ñi waaye ndaw ñi nañ jox cër mag ñi loolu nag ñu xool ñun fi ñu ci toll ndax mag ñaa ngi yërëm ndaw ñi ba léegi manqué na yërmande jooju ngay gis noonu manqué na lu baree bari ndax mag ñi taxawaay bi ñu war a am ci ndaw ñi buñ ko amoon ndaw ñi bari na ndaw ñuy sànku te duñu sànku bari na koo gis mu nekk délinquant ne ci mbedd mi la ko teg ci ay waajuram la taxawaay bañ ci war a taxaw moom lañ ci taxawul moo tax mu xëy soppi gab délinquant ne ci mbedd mi kon mag mi yërëm ndaw ñi waaye itam ndaw ñi jox cër mag ñi loolu tam lu manqué la tey boo doon dox suñu mbedd yi biir Touba rek léeg nga gis ci cas yu doy waar yoo xam ne nii ndaw lu taqarloo koo xam wóoru na ko mag na ko bàyyi wala maam sax mu jëflanteeg moom jëflante boo xam ne yow da ngay dar sa bopp loolu lu fi la waaye itam dafa nawlonte nawlonte itam lu manqué suñu biir la mooy ku nekk nga tolloo ak maas nga def ko sa nawle loolu itam manqué na suñu biir lool léegi sax bu ñuy toog maanaam loolu jërul leeral waaye daal mi ngi ñu xam ko kon sëñ bi lim jàngale foofu bu ñu ko delloosee rek askan wi daal tegaat teguwaat ci aw yoon waaye itam sëñ bi duna loowatoon yeneen jikko yoo xam ne lislaam jàngale woon mooy dimbalante mottulante waaye am tolérance maanaam xajoo suñu biir ñooñu sëñ bi def cee jàngale lu baree bari nu ñuy fexe bay leen suñu biir nu ñuy fexe bay mottulente nu ñuy fexe bay xajoo suñu biir loola sëñ bi jàpp ku ne xam na ne mag ñi newoon ci biir kër sëñ bi wuute woon nañ lool ku nekk ak ni nga déggee woon sëñ bi moo ne loolu lépp sëñ bi daf leen a woon ñoom ñëpp boo leen ci benn ëtt loolu defe naa ne war nañ koo gën a mën a delloosi ngir mën a dund ci biir jàmm kon loo ñooñu la sëñ bi formé nag te saare leen ci biir senegal moo tax la juddoo ci ñoom daal ciy juddoo loolu xay na fànn yu baree bari la eh, waaye itam tasaare ay valeurs yu bees yar ci ay nit ñu màgg dem tasaare ko feneen loolu lépp wax yu mel noonu ñëw nañ ci am na ci fànn boo xam ne nii xëy na ci jamonoy sëñ bi tasaaroo wutoon lool muy média média bi ngay gis nii ak jumtukaay yu xarala yi xëy na jamonoy sëñ bi tasaaroo wutoon nii mu tasaaroo waaye mën nañoo ballulu ci njàngaleem sëñ bi loo xam bu ñëpp tënkoon rek yàqu-yàqu dóor ci am ci misaal tey lu bari ci li ñuy yàq ci média yi dañ koy wax lu ñuy wax lay doon làmmeñ a koy tudd nit ñi di ko dégg waaye sëñ bi jàngaloo bi ak ñu ne saw làmmeñ danga nga koo war a sàmm ci lépp luy wax ju ñaaw lépp loo xam lu ñaaw la war ngaa fexe ba du génn saw làmmeñ defe naa léegi bu fekkonte ne képp koo xam da ngaa yor micro di wax fexe nga ba lu ñaaw du génn ci saw làmmeñ kon baax dana yomb lool waaye nag ñëpp ñuy wax ñu leen di déglu wala ñu leen di filmer di leen wane ñu jëpp la ñuy wax ah, la ca baax bëriwul lool. kon bu ñu jëloon dénkaane boobu rek média bi mën naa daal di jaar yoon waaye itam am lu mu wax mu ne seb gis ko sàmm ci lépp lu araam bu ko xool loolu responsabilité la tey ku xool télé daf laa neex ku jënd crédit def ko ci appareil di connecté wu dugg ci nangam ja di xool la ngay xool yow la neex kon boo gëmoon ne waroo xool lu araam def ko ci sa njaboot tàmmal ko sa njaboot kon duñ gis lu araam ba muy mën a yàq ñoom ay jikko kon yooyu xay na njàngale la moo xam ne nii buñ ci delloo mën nañ cee ballal lu baree bari loo xam ne nii média bi mën na fee nekk te la muy yàq du àgg fenn. foofu na xëy na kon responsabilité ku nekk dañ ci am sa warteef muy nit ki ci boppam ak kilifa njaboot gi ci kër gi ndax nit tam nag bu xasee nekk mu kàllaf moom ay responsabilité moo koy assumé boppam moo koy yoral boppam la muy gis ak dégg moom. moom moo cay moom lañ cay moom lañ cay xool waaye xale bu ndaw bi ne ci kër gi nag moom nga xam ne ràññeegul moom la koy jariñ ak la koy lor kooku ay way wayjuram ñoo war a xool di ko contrôler la muy gis ak la muy dégg ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax te bàyyi xel nag ci ne jumtukaay yu la yi naay la loo xam ne nii moom ñaari boor la maanaam mën naa jariñ waaye mën naa lor moo tax aaya gi kenn waxu waxuñ ñu aaya ko kenn waaye nañ fexe ba mën koo jëfandikoo ci façon bi nga xam ne nii moo ñuy jariñ sëñ bi tam am lu ñu jàngal nañu nag jamonoo ngi ñëw joo xam ne nii delluwaay dana jafe lool waxuñ ne amut mi ngi fi waaye xëy na na nam war a tasaaru daa tasaaru noonu ndax bari na ci delluwaay yoo xam ne ni ñu ngi fi waaye nag takkook nit ñi moo leen jafe nit ñi am ak ñoom contact direct moo leen jafe moo tax li ñu war a def ci nit ñi def ko ñoom dafay xaw a jafe moo tax sëñ bi ne woon nag bu ngeen demee ba lu mel noonu jafe nag maa ngi leen di dénk mbir mooy la nga xam ne nii mag ña li jiitu woon yaxaloon nañ ko na ngeen fexe ba jàng ko te xam ko te tënku ja te bañ a ëppal bañ a yéesal loolu sëñ bi jàngale na ko kon tiig tënk xam naa ne yu baree bare la yoo xam ne war nañ koo mën a jàng ci njàngaleem sëñ bi ngir mën koo jariñoo ci lu nuy jëme kanam waaye luy defaraat suñuy jikko kon daal ñu bàyyi xel ci ne liggéey ci jikko yi ci ndaw ñi la war a tàmbaleen ndax askan mu ngi mel ne garab garab garab da nga koy jëmbat te tey ci misaal da ngaa amoon sa buntu kër jëmbat fa garabu niima di ko roose di ko taay di ko folet di ko toppatoo ba mu màgg ba nekk garabu niima gu rëy nga ne ko nag ay mango ngay meññ booba moom yaa tooñ mënut a meññi mango niima dong la mën a meññ. moo tax li ñuy gis nii tam mbir mi nii rek la mën a deme kon ab liggéey la laaj boo xam dañuy déparaat suuf jëm ci liggéeyaat baax a baax kon bu nu bëggee am développement bi ñuy yéene bi ñu bëgg ñun bëgg suñu ëllëg dàq suñu tey. il faut ñu bàyyi xel ci ne li ñuy tuddee ay valeurs universelles am na am na ci yu ci am dëgg moom dëgg rek lay doon sellal sellal lay doon fu mën di noog waaye nag dafa tuuti dafa bëriwul yu baree bari ku nekk da nga am noo ca doxe noo cay gisee moo tax li ñuy tuddee ay valeurs universelles am nay benn benn waaye nag lu tuuti la kon nag askan wu nekk da nga am sa cëslaayi bopp am sa identité bopp am sa mbatiitu bopp am sa ndonal bopp te kenn mënta avancer nag su fekkente ne sukkandikoo woo ci sa ndonal bopp sukkandiku say valeur sukkandiku say cëslaay tey boo génnee ci àdduna bi am na ay réew yu ñu te ay dragon dragon mooy pays asiatique yi nga xam ne ni dañoo dox dox bu gaaw ci diir juróom fukki at ci lañ dox dox bu gaaw lu mel ne maanaam Hong lu mel ne Singapour lu mel ne Malaisie yu mel dëkk yu mel noonu nga xam dox dox bu gaaw lu mel ne Japon gi ngay gis dox dox bu gaaw bokk na ci leen ko mbay mooy dañoo sàmmoonteeg seen aada ak seen cosaan tey boo gisee tey balance commerciale diggante Amérique ak Japon fu mu nekk di nekk déficitaire maanaam nga xam maanaam maanaam américain li ñu jël japonais moo ëpp li japonais li ñu jël américain lu tax ko waral mooy ne japonais dañu leen yar ci ñoom daanaka duñ jëfandikoo lu jóge biti li jëpp seen mbiri bopp la ñuy jëfandikoo noonu la chinois yi mel ñeneen noonu la ñu léegi nag ñun ñoom dañoo mel noonu ba pare nag ñun def ñu sën boo xam ne ñoom lu ñu defar indi jaay ñu ko ñun ñooy jógee fii dem Chine doo indi benn marchandise bu baax jël mbalit ma tasaare ko ñëw boo naan dama indi conteneur nangam ak nangam mbalit ma nga jee def ñëw ñu koy njëkkante loola mooy ñi ngi delloo bopp suñu gannaaw mooy kon dañ xam ne suñuy cëslaay ak suñuy valeur suñuy aada ak suñuy cosaan ci lañ mën a sukkandiku ngir mën a màgg loola nag ñu war caa yar ndaw ñi nàmpatal leen ci ñu màgg si bu ëllëgee man ñoo jox liñ bëgg lu dul loolu nag liñ tàmbaleen waxtaan moom lañ koy tëje mooy mbooloo moo gis seeni jikko moo leen yor bu fa seeni jikko jógee mbooloo moom amatul kon ñoo ngi jégglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waaleykum euh, jërëjëf sëriñ waxtaan wi am na solo ci képp koo xam ne yaa ngi doon topp tomb bi mu doon waxtaane sulli na fi yu mat a bàyyi xel ginnaaw bu mu ñu leeralee ne jafe-jafe yi am ci àdduna bépp la te it làmb na wàll yépp làmb na wàllu koom-koom mi làmb dundiinu askan wi làmb jikko yi làmb sax delluwaay yi bu ci nekk mu leeral ni mu fese wax nañu it ne yàgg nañoo jéem ay kilifa yàgg nañoo jéem a defar rawatina nit yi àdduna yi di tal tër ay pexe ngir jàpp ne buñ ci jaaree jafe-jafe yi ñu génn ci waaye ëpp ci pexe yooyu dañuy yóbbu ci lu yees loolu junj na ko waaye leeral ñu ne kon waruñoo taxaw yàccaaral faw war nañoo gëstu ba am lu saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel mu leeral ñu ne loolu saafara si mi ngi dellu ci ñu tàmbulee ji xam sunu bopp xam sunu démb ngir man caa sukkandiku ngir tabax sunu ëllëg wax ñu it ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu bi mu dikkee loo lii la def dafa ñëw yeesal ni mu waxee ne dafa ñëwoon ngir yeesal si moo ko sëriñ bee ko wax diinun siwa islaamihi la yuhamadu inda al ilaahi wa bihi nu jaddidu yeesal jikko yi delloo nit ñi ci yiñ fekkoon yépp ñu am ci ay jafe-jafe gëmloo leen niñ war a amee jikko yu rafet niñ war a ubbikoo niñ war a laabiire niñ war a xajoo nit ñi waaye niñ war a liggéeyee ngir mën a jariñu ak jariñe bañ a aj sunu dund ci keneen wala ci leneen defaraat jëflante bi ci diggante nit ñi ba nit ku ne yéene boppam lim yéene mbokkam boppam la yéene mbokkam Sëriñ Fàllu wax na nag fii ñu toll it la sëriñ bi defoon ba mu ñëwee fekk fi ñuy jàngale te dawuñ yare te mu gis ne ab xam-xamu kese bu àndute ko yar du am njariñ te loolu sëriñ jàngal na ko ba tey wax ne nit ku am xam-xam te jëfewu ko mbaam mu safi téere la waaye ku bëgg a jëf te amoo xam-xamit da nax sa bopp waaye mënta nekk kon faaw ñu boole ñaari sëriñ bi fekkoon ñu jàng nee na waaye nag antoon ak yar mu indi ñoom lu ñu xamutoon mottali li woon ñu foog ni daa tas daara ji fekk daa defaraat daara ji sëriñ bi tasut daara ji da ko defaraat fekkoon na fi ñuy jàng fekkoon na fi ñu ñuy ba peeg ñuy tudde jàng ba war nu lef ba war nu lef fekk na ko fi waaye taxut nag jikko yi defar woon mag ñi nee ñu xamoon dañ fi ay sëñ daara yoo xam ne ñoo daq jàngle di mokkal la dul jeex waaye saa bu takkusaan jotee ñooy tëj làmb ja ak ñoo xam ne ay laawaankat lañ dañ leen di géewal ay njagamaar wër leen ñu tàmbali tari alxuraan di ko boole ki dakkase di tari ay boole ba am nga xam ne li ci am jaaxaan la te ñooñu ay kaang yu wattu alquran ba leen di soow ñoo ko doon def kon xam-xam amoon na fi waaye nag jikk taxutoon jikko yu bari defaru sëriñ bi ñëw nag ne ndigal lim am mooy rab bi asxaabaka bil himma tarbiya boo xam ne dañuy fexe ba li ne ci sa sam xel ci ay xam-xam waaye mu ne ci say cër ne ci sa jikko li diine di santaane ci jikko ju rafet ci ubbiku ci baax ci laabiir ci amal njariñ nit ñi nangoo liggéey bañ tayel lépp nekk ci yow nga di ko dund loolu la fi sëriñ bi delloo si waat defar ñëpp nag defaraat ñëpp kon nag war nañoo xoolaat sunu bopp lu tax loola del siwaat waat sëriñ Moussa ci wenn bayitam junjoon na ci lu mel noonu bi muy wax ni sëriñ bi liggéey ci jigéen ñi wax ne sopp jigéen ñi muslimaat ñuy dawe góor ney muxsinaat rëkki takkaay yi seeni baat di muuru dëddu xarnu bi waaye li sëriñ Fallu wax yooyu yépp nag dellu si waat kon war nañoo xoolaat suñu bopp li sëriñ bi defoon xoolaat njàng bi mu fekkoon ak yar ba mu defaraat ko joyanti ko la ca manqué woon ko ñu itam ñu def noonu ndax gis na ne suñ ñaari système yi ñu am bi jàngale diini am na lu ci manqué ndax taxut nit ñi defaru bi jàngale adduna mu kenn waxu diine zéro jikko zéro waaye ñi jàngale diine it ba tey la taxoon ñu doon jàmbat ba sëriñ bi ñëw ñu ngi koy jàmbataat ci ñoom ñoo xam ne ku jëflante ñoom buñ la jekkoo jekkali la loolu nag sëriñ Fallou wax ci lu am solo ci faw ñu xoolaat kon système éducatif bi ñu yor fexe ba jàngal ndaw ñi waaye yar leen xamal leen lépp loo xam ne nit war na koo xam waaye nag defar seeni jikko mooy tax yi ñu jàmbat dañ ndax gis na ne jafe-jafe bi boo ko seetloo feeñ na lépp waaye li ko lal nag ak ñàkk la ndax lan nit ñi nanguwuñoo liggéey ndax lan dañuy xeeb ay métier ndax lan dañoo xeebante nawloonte wuñ am ñoo xam ne jàpp nañ ne mën nañoo dund ci kaw xel yi nit ñi te duñ sonn te loolu Sëriñ Tuubaa jële woon na ko gëmloo nit ñi liggéey ba kenn ku ne loo gis liggéey bi daal loo ciy xool ndax dagan na wala daganul loolu bu ci nit ñi dellu woon ni mu waxee nii nit tàmbale na ci jaayi soccu ba nekk milliardaire nga gis koo xam ne waxuma la jaayi socc waaye boo ko bëggoon a jaayaloo buti sax mu ne xeeb naa loolu te amagul dara loolu lu am solo loo xam ne sëriñ Fallou ñu ne ko wax ne nag defaraat gi moom ci ndaw ñi la mën a dellu ci lay tàmbalee jafe-jafe ji ñi ci gën a loru mooy ndaw ñi ndax ñoo ci ñàkk amuñ saa suñu yar leen yar bu baax amuñ saa ñu waajal leen tàggat leen bañ mën a jariñoo koom yi ne ci suuf lu waral mbokk yi réew mel ne senegal ñu ne pétrole feeñ na fi gaz feeñ na fi yu bari ñu ne feeñ na fi waaye dañ lay wax ne li ci Sénégal di am 10 pour cent la ndax lan seeni ndaw jàngaluñ leen kon ñeneen i ndaw yi ñeneen ñooy ñëw exploité ko mosal la ci yow mi ko yàlla baaxee jox la ko te du fii dong de bari na ci ay réew yu Afrique yoo xam ne la yàlla dëxañ ci seen suuf ci ay xéewal ay yiw seeni doom yi daw jëriñoo wuñ ko ndax lan formation bu manqué yar bu manqué ba tax la fa nekk ci xéewal ay jàmbur ñëw di ko yóbbu kon ndaw ñi lañu war a waajal ñu xam ne ñoom moom li ne ci kaw suuf si sunu borom ci mbaaxam dafa bind nit ne koy li ci kaw suuf si yow laa ko bind wa maa fi sama wa maa fi lard jami'an min kon ñenn ñu nekk fañ nekk la fa nekk ci ay xéwal ñoom la ko yàlla jox waaye nag sunu boroom nag du la tibbal di la si xel dalay teg ci yoon kon faw ñu sonn ci ndaw ñi woy jur yi xam ne am nañu responsabilité bu rëy jur doom jéemoo ci moom dara jàngaloo ko yëroo ko su màggee mënulaa jariñ di la tàng sab xol saa su nekk am nga ca responsabilité nit dañ koy nit du mala te wax na la fii ni doomu aadama seen cosaan ñoom mala yi ñooyam lan moo leen wutale ñoom xel mi nàmm sol ko xam-xam ba mën a jariñ waaye suñ boyee lay nit rek kenn yëru ko jàngaluñ ko moom mala yi ñooyam bu xiifee ŋaax bu reggee ngax waaye nit kuñ defar mooy koo xam ne bu xiifee xam ne nit la dana gore sàmm ngoram bu reggee it xam ne nit la wërta bajatu ci kaw kenn loolu nag responsabilité ñëpp la waaye rawatina ku jaboote ay nit ku ne sunu borom daa waxoon ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha nas wal hijaara loolu mbokk yi responsabilité naa ko faral di wax ne kenn lu la yàlla ëllëg njaboot gi mënaluñ leen dara sunu borom képp ku mu jox njaboot xam na ne man nga leen a yar mubasharatan walla bi wasita kilifa yi tabax nañ ay daara tabax ay jàmm nañ leen yóbbu jàngal leen te boo gunge leen akub yar taxawu leen bañ xam ne boo ëllëgee dañoo war a yor àdduna ndonul rëy lii nga xam ne sëriñ Fall doon na ko wax sëriñ Tuba andi ko fi jëriñ ci ay aj yàlla ay mag nekkoon fi yoo xam ne sëriñ Mbàkke Buso raxu bi mas naa wax ne mësta xam ci histoire ñu gën ñooñu ndax seen jikkook seen mat ñooñu la fi sëriñ bàyyi ñu def seen liggéey seen kem kàttan ndono loolu mbokk yi waruñ ko yàq ci bàyyee ko ay ndaw yu ñu jarul jàngalu leen ñu di ko foyee ba suñuy loxo mujj ci ay nit ñoo xam ne alali àdduna jaral na leen jaay seen ngor jaay seen diine ngir tekki ci àdduna ndax lañ jàpp ne mooy tekki mooy alali àdduna lu mel noonu faw yëg-yëg boobu nit ñi war ko am kon tomb bii Sëriñ Fall doon waxtaanee. képp kuy wayjur képp kuy kilifa war nga yëg ni am nga ci responsabilité ndaw ñiy yàqu ndaw ñiy sànku loo ci doon ndax bi la yàlla joxe doom jaarale nga leen fa nga leen war a jaaral ndax jàngal nga ndax ba ñuy jàng yaa ngi xool li ñu jàng amal na la njariñ wala déet ndax njàng maa ngi jeexital ci seeni i jikko wala da jeexital ñun ñëpp dañuy laaj kanam kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raayati loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel a baax sëñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax di ñaan suñu borom baril say kem di ñaan yàlla yàlla na ñu dégg message bi nga doon joxe ba tax ñu mën defaru tey li wér mooy barab bii xamu fan waaye fii moom defaroo fi jëfewul Sëriñ Tuubaa liggéey na fi loo xam ne képp kuñ sonn ci yow tuuti rek nga jag ndax ba tey jii li ñuy dégg ci ak yàqu am na ci loo xam ne ak seegul fii tey li am solo mooy bi a saaliha jaww ju baax jaww ju baax te moom la fi yàlla def sëriñ Tuubaa liggéey ko ñaan ko yàlla yàlla nangul ko ko kon nag war nañoo am taw fi am taw féex jooju war nañoo am yitte ak pas-pas nag ci sun ndaw yi fi nekk ñu jëm leen tàggat jëm leen a jëmale fenn waaye am na fi ndaw ñoo xam ne jëmuñ fenn mbokk jàngaluñ leen yaruñ leen jéemuñu def dara ba bëgg a teen ñooñu lu yàqu ci àdduna ko waaye nag nañ xam ne ñi leen yilif am nañ ci responsabilité ndax jaaraluwuñ leen fa leen war a jaarale kon message bu am solo la joxe bu ñu war a dégg rawatina bu fekkee ne tomb la boo xam ne ay ndaw ñoo ko pour proposé ngir bëgg ñu waxtaane ko kon ñoom yëg nañ jafe-jafe bi ñu dund bëgg nañ ko leen jigéen kon nañu jàppalante ak ñoom ñu ngi jéggalu di baal di rafet lool waxtaan wi di ziare bu baax Serigne Cheikh mi ñëw teewal fi ay kilifaam nekk ci kanam njaboot gi di ñaan yàlla jataay bi am jeexit ju rëy ci njaboot gi am ko ci réew mi ndax moom la réew mi soxla réew mi soxla na leen loolu fi ne nii ndaw ñi soxla nañ ko mag ñi soxla nañ ko ndax mag ñi bari na ñoo xam ne seen xel dalatul ndax ndono li ñu yor mu am njariñ yan loxo lañ koy teg yan loxo lañ koy teg waaye nag lu yomb la ndax sëriñ bi fakkoon nag ko ba leer delluwaat ci dong mooy suñu wartee te loolu yomb la kii ñuy fàttaliku muy sëriñ Mbàkke Madina radiyallaahu anhu doy na misaal ci defarub sëriñ bi ci jag ci jub ci baax gën waaye ndax jamono ngi produire léegi ay sëriñ Mbacke Madina ndax ndax am nañ amati nañ fuñ ku ñuy xel ni dalale ne sëriñ Mbacke Madina kat ndaw ñi am na ñoo xam buñ màggee ñu amaat ay sëriñ Mbacke jombut nekkul mustahil mbokk yi du mustahil de yitte dong la lañ kon nag nañ jox yitte jooju mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu lépp loo xam ne rek euh, wax nañ ko fi mun na doon njariñ lépp loo xam ne ñaan nañ ko feet suñ borom defal ñu ko aw yiw defal ñu ko muy njariñul àddina alaxira defal ñu ko muy njariñ umma sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon xëy na jotaay bi comme guddi na yooyu kàddu lañ doon wax ci turu seeti Serigne Mbacke Madina yi nga xam ne ñoom ñoo taxawaloon lii ah ngir jàngat ci ay jikko yu baax ngir fàttaliku ci seen maam Serigne Mbacke Madina kon ñi ngi soññ ñëppit nag te xam ne lii ñu def am na solo lool te defuñ leneen lu gën a am solo lii ndax ñun kat li ñu sëriñ Touba defal sëriñ Mbacke màddina defal ñu ko yaakaar naa ne bis yu mel nii wóorut ay am rek ci at ay weeri weer weer wu dot wala ñaari weer waroon nañ koy def waaye bu yàlla dogalee rek ah jamono xat tënk-tënk yi bëri ñu fas yéene at mu jot ñu def ko kon ku ci nekk na nga gën a góor góorlu jàppe ko sa mbir te xam ne li la sëriñ bi defal ah nga jël ci benn bis ñaari bis jagleel ko ko loola boo ko fi deful defoo leneen lu ko ëpp solo kon nañ ci doolee góorgóor bu baax a baax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu ni ñu ko tàmbalee nañ ko àggale alhamdulilahi rabil alamina ba màggal gi yëpp ànd ak jàmm te lépp luñ fi ñaan suñ borom nangul ñu ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen amin ya rabbal alamin amin